ndegam baay bu ndaw moom jeex na desatut dooy baay rek a des te am na ci ku am na ci ku gën a jege moroom ma te am na ci koo xam ne baayam ak ki faatu ñoo bokkoon ndey ak baay kenn ka nag moom baayam ak ki faatu baay képp lañ bokkoon kon ka gën a jege nga xam ne baayam ak ki faatu ñoo bokk ndey ak baay kookaay doom ka ci desam daal daanu kon waxaa ka saa ni ki ni yekkoon dina nekk rek al aqrabu ko gën a jege awlaa di gën a yi kon noonu lay demee rek saa yoo xam ne daal ñooñu mën nañoo jeexal alal tase fa ka gën a jege day daaneel ka nga xam ne moo feeti suuf bala ngaa tudd rek sët bu góor day fekk doom bu góor amut bala ngaa tudd menn mbokk yi day fekk doom ju góor amut sët bu góor amut baay ba nga xam ne moo jur ka faatu néewu fa bala ngaa tudd maam mu góor it day fekk baay nekku fa su fi ñooñu nekkul nag ngay door a jàll si ci mbokk yi su mbokk yi jeexee nga jàll si ci doomi mbokk yi ci doomi mbokk yi jeexee nga jàll si ci bàyyi ndaw yi su bàyyi ndaw yi jeexee nga jàll si ci doomi bàyyi ndaw yi noonu lañuy tegal te nga seetlu itam ne wàll ga nga xam ne moo féete ci ndey ak bàyyi faaw mooy jiitu wàllu bàyyi ga kese nit ki boo ñëwee ci mbokk yi ka bokk ka faatu ndey ak bàyyi mooy jiitu nga door caa teg ka bokk ak moom bàyyi dong boo ñëwee ci doomi mbokk ya noonu boo jëmee ci bàyyi ndaw ya noonu boo jëmee itam ci doomi bàyyi ndaw yi noonu te nga bañ a fàtte ne maam mu góor kat yemut ak bàyyi ndax bàyyi moom moog doom ju góor ak sët bu góor ku fi nekk rek mboole mbokk yépp yépp yépp daan nañ menn mbokk du doon waaye nag bu fi maam mu góor nekkee mbokk ci wàllu yaay kese kese la mën a tee doon waaye du tee doon mbokk ndey ak baay moo xam góor la moo xam jigéen ak mbokk ci wàllu baay moo xam góor la moo xam jigéen la daañu la wax sax bu ñu tasee nu ñuy jëflantee ci wàllu miraas wala yarisu du doon banul axawaati doom yu góori mbokk yu jigéen ya maakun na lu ñu mën di nekk mooy lu ñu mën a doon ñoom mbokk yu jigéen ya fi mu def banoo mën na fee def rek awlaadul axawaati wala wala dul axawaati rek mu gën a gàtt daa bëgg wax ne mbokk mu jigéen moom doom du doon mbokk mu góor moo xam ne kay yéen a bokk ndey ak baay wala baay kooka la doomam di doon te it day fekk doomam ja doon góor te bañ a nekk jigéen loolu nag mënees na cee juum ndax mbokk mi nga bokkal ndey ak baay muy góor wala ngeen bokk baay te muy góor buñ nee doomam dana la doon doomam jëy góor moo tax ñuy wax waaye doomam jëy jigéen moom du doon te gis nga ñooyee moo képp ci boo ko dee xool ci zahir wala banul banaati du caageenu doom yi góor yi doom yi jigéen ya sët bu bàyyi ko ci doom bu jigéen muy góor muy jigéen du doon dafa safaanoog sët bu bàyyi ko ci doom ju góor sët bàyyi ko doom ju góor moom yaar yëppay doon bu góor ba ak bu jigéen ba wala banaatul axi du caageenu doom yi jigéen yi mbokk mu góor maakaana lu mën di nekk mooy lu mën di doon doon naa ko wax léegi sa mbokk mu góor mi nga bokkal ndey ak baay wala baay doomam dana doon waaye jëy góor moo tax ñu wax waaye jëy jigéen moom du doon wala banaatul am mi du caageenu doomi jigéen yi baay bu ndaw ba ngay tudd baay bu ndaw waxan nga ci ñaar ñuy doon mooy ki nga xam ne mook sa baay ñoo bokk ndey ak baay ak baay bu ndaw bi nga xam ne mook sa baay ñoo bokk benn baay ba nga leen tuddee waxan nga seeni doom waaye jàppal ne seen doom yooyu góor kat ñooy doon waaye seen doom yooyu jigéen moom du doon wala jaddum du caageenu maam mu góor li um min ñeen wàllu ndey maam mu góor ci wàllu yaay mooy rek ki nga xam ne moo jur sa yaay kooku du doon wala xam mun du caageenu baay tax axoo abika kay mbokkum sa baay li ummi yi ñeel ndeyam sa baay ba ndaw bi nga xam ne mook sa baay ndey rek lañu bokk kooka du la doon baay bu ndaw ba nga xam ne moo bokk ak sa baay ndey ak baay wala baay kookaay doon wala yarisu du doon xabdun ab jaam wala man du caageenu koo xam ne fii nekk na ci moom baqiyatu riqin dasiiti njaam ab jaam bu sotti wala koo xam ne laal na ci njaam niki kuñ ko rey lennam bàyyi lennam kenn du ci doon bu fekkee ne jaam ba faatu na ka nga xam ne moo ko moomoon rek ba muy dund ba léegi mooy moom alalam te jaam ba ci boppam nag bu bàyyam faatu woon mbaa kenn ku war a doon it du tax jaam ba ñu boole ko ci ñay doon wala yarisu du doon al muslimu jullit ba al kaafira yéefar ba wala al kaafiru du caageenu yéefar ba al muslima jullit ba doonante dañ cey sart ñu bokk diine buñ xasee wuute diine rek duñu doonante bu kee dee jullit kee di yéefar kenn du ca doon sa moroom doonte sax day ndey ak baay wala baay ak doom it buñ xasee wuute diine duñu doonante wala bu axin du caageenu doom ju góor yi mbokk mu góor li ummin ñeen wàllu ndey sa mbokk mi nga bokkal ndey dong dana doon waaye moom nag doomam moom du doon wala jeddum du caageenu maam mu góor li ummin ñeen wàllu ndey da ko baamu waaye waxal na ko léegi wala ummu abil ummi du caageenu ndey baayub ndey baayub ndey mooy sa maam ju góor ji jur sa yaay maam ju góor ji nga xam ne moo jur sa yaay la wax ne yaayam du la doon kon boo nee diw day mooy bàyyub sama yaay kookee di bàyyub sa yaay nag lay wax ne yaayam du la doon daanaka jërutoon tudd ndax sa maam ju góor ji nga xam ne moo jur sa ndey moom du la doon kon nag kooka yaayam du la war a doon wala tarisu du doon ummu abil abi ndey bàyyi bàyyi maxa wala diha ànd ak doomam ja abil mayiti kay bàyyut néew ba wax boobu nag saraay dañ ciy faral di wuute waaye mel na ne mën ngaa jàpp rek ne daa bëgg wax ne maam ju jigéen jëfeete ci wàllu baay la koy tax a doon daal mooy baay bañ faa nekk menn maamu góor bañ faa nekk waaye su baay xasee am rek wala maamu góor rek maamu jigéen mu féete ci wàllu baay du doonati wala parisu du doon ixwatun ay mbokk li ummin ñeen wàllu yaay maxal jaddi ànd ak maamu góor li abi ñeen wàllu baay wala maxal waladi du caageenu ànd ak doom wa waladil waladi ak doomi doom kaana moo xam nekk na al waladu doom ja zakaran di góor aw unsa wala muy jigéen lu mel nii wax nan ko waxati ko waxati ko mooy bëgg laa takkal ne la mbokk yi ci wàllu yaay dañoo yomba daanu am na ñett ñoo xam ne daañu leen daaneel te duñ daaneel mbokk yi ci des te loolu mooy maam ju góor bu fi xasee nekk mbokk ci wàllu yaay du doonati doom ju jigéen ak sët bu jigéen kum ci man doon bu fi nekkee mbokk ci wàllu yaay du doonati te nag bu dee beneen mbokk moo xam ne daa féete ci ndey ak bàyyi mbaa ci bàyyi moom bu fi doom bu jigéen nekkee mbaa sët bu jigéen du tee bu desee rek ñoom ñu doon buñ fi nekkee ak maamu góor it ñoo bokk daraja daañu wax sax buñ dajee lu ñuy àttee seen diggante wala miraasa deetub dono li ixwati ñeel mbokk ya maxal abi ànd ak bàyyi maakaanoo lu ñu mën a nekk ba tey loolu takk-takk la boo xam ne joxe nañ ko ba tàyyi mooy bàyyib ka faatu bu fa nekkee mbokk yépp yépp daan nañ mën nga caa dolliwaat lañ ca daan dolli moo bu fi doom ju góor nekkee mbokk yépp daan nañ bu fi sët bu góor nekkee mbokk yépp daan nañ wala yarisu du doon xamun bàyyi tax maxal jaddi ànd ak maamu góor loolu aajo wanaa takk maamu góor moo gën a jege bàyyi bu ndaw bu fi maamu góor nekkee baay bu ndaw du doon wala bu nu axin du caageenu doomi mbokk mu góor maxal jaddi ànd ak maamu góor loolu ba tey mat naa takk maamu góor bu fi nekkee doomi mbokk moom du doon xam nga maamu góor mbokk ci boppam ba féete ci ndey ak baay mbaa ci baay la yemal daraja waaye nag doomi mbokk moom maamu góor gën a jege bu fi maamu góor nekkee doomi mbokk du doon wala yarisu du doon xaatilul xamdi aji rey tey min maalin ci alal wala diye du caagéenu diya koo xam ne daa rey ku war a doon te rey ko reyuk tey dañ koy xañ dono ba ni ko da ngaa yàkkamti bëgg koo doon waaye doo ko doon ci genn wet nga xam ne moom du doon ci alal ja du doon ci diye jën joxe ngir rey ga wala yarisu du doon xaatilul xatay aji rey tayee ful mi ne diyeet ci diye ja wa yarisu waaye dana doon minal maali ci alal ja ku rey nit nag te tayu ko diye ja ñi joxe ngir rey ga moom du ca doon waaye nag alal ja nga xam ne bokkut ak diye ja dana ca doon ci bu dee ci maalik moom di àttee wa kullu man képp koo xam ne laa yarisu du doon bi xaalin ci am mbir falaa yax jubu du yiir waarisan jenn aju doon képp koo xam ne dem na ba am lu ko tee doon du mën a yàqal keneen ab doona loolu nag takk-takk la boo xam ne dana faral di fecc ko ci ay masala yu xaw a takku mat juróom benn ci li ko téere yi indee ba ci gën a siiw nag mooy lu mel ne mbokk yi buñ taseeg yaay ak baay xam nga daga mbokk yi li mun nañ mat ñaar mbaa ñett danañ yàqale yaay doon ab sulus kon yaay yooyu jamono ab juróom-benneel muy suddus lay doon te loolu mbokk yaa ko ko teg nga xam ne kon nit bu faatu woon bàyyi li mu ay bokk ak baayam ak yaayam yaayam ab juróom-benneel dong lay jël boo defee juróom-benni xaaj mu teggi ca benn la des mi juróomi xaaj bàyyi ba jël ko te loolu mbokk yooyee ñoo ko ko teg bu fekkoon du woon mbokk yi limu kon yaay ab ñetteel lay am nga def ñetti xaaj mu teggi ca benn nga xam ne kon mbokk yooyee jamono doonuñu ndax bàyyi moo leen tee doon waaye teewul nag yàqal nañ yaay cëram ba gën a doon yóbbu ko ci cër ba gën a tuuti loolu nag ay masala yi masala la defe naa gën gaa néew war naa mat juróom benn wal mutallaqatu kañu fase talaasan ñett fil marad ci biir tawat taris dana doon zawjaha jëkkëram ja in maata ndeem faatu na min maradihi ca tawatam ja dalika joojee wala yarisuha te moom du ko doon dañuy bañ ku fase ci biir tawat aay woon nañ ko ndax day mel ne kon daa bëgg a xañ kooku ab dono léegi nag ku tawat tawati faatu ba noppi fase soxnaam ñetti fase itam du tee rek bu faatoo ca tawat joojee faaw ñu boole soxna sa ca donn ga nga xam ne tawat ja mën naa yàgg soxna sa séyi fa ay séyi séy am fay doomi doom te du tee rek bu jëkkër joojee faatoo bu war a bokk ca ñay doon te nag bu fekkoon ne jigéen jaa faatu moom góor googee du ko doon wa kazalika naka noonu inkaana ndem nekk na ak talaaxu pase ma waaxidatan di menn wa qad maata te mbir moom faatu na min maradihi ca tawatam ja daalika joojee ba adal xiddati ci gannaaw xidda ja ba tey sax bu fekkoon ne moom mu tawat lam fase soxnaam matul ñett da ko fase rek benn nga xam ne benn nangu na fayli kooku moom muy ko wér muy ko tawata ci yam ñoom ñaar ko ca faatu ci biir idda ja rek sa morom doon la dana ko leeral léegi waaye li muy wax ni nag mooy moom mu tawat benn fase la fase woon soxnaam mbaa ñaar nga xam ne daal jeexatoon buum nga waaye nag idday jigéen ji daa jeex góor ga door a faatu idda ji jeex du tee soxna sa doon te loolu bu fekkoon ne ci wér la moom mu fase menn pase mbaa ñaar bu idda ci xasee jeex kenn du ca doona ci sa moroom waaye nag dégam ci faatu la fase moom bu idday jigéen ji jeexee itam góor ga door a faatu it du tee rek jigéen ja doon ko wa in tallaxa ndem fase na a saxiixu aji wér ja imraataho jabaram talxatan am pase waaxidat mu di menn fa innahuma naka ñoom ñaar yatawaarasaani danañu donante maakaanat li feeg nekk na fil iddati ci idda ja fa inin xadat ndeem jeex na nag fala miraasa déetub dono baynahuma nekk seen diggante ba adaxaa ci gannaaw moom laa doon tudd léegi ku dara dëlut fase soxnaam pase moo xam ne jeexalul buum nga nga xam ne pasem paydi la li fekk idda jay jeex rek ñoom ñaar ñu góor ga ku ci faatu rek sa moroom doonnu la bu idda ci xasee jeex nag ku ci faatu itam sa moroom du la doon wa man tazawaja ku takk imraatan jigéen fii maradihi ci tawatam ja lam tarisu du ko doon moom jigéen ja wala yarisuha te du ko doon moom góor ga niñ aayee ku tawat tawati faatu muy fase noonu lañ koy aayee itam muy takk ndax bu takkee day mel ni daa yéene kooku ab dono kon nag ku tawat tawati faatu takk jigéen ci biir tawat ja bu faatoot ca tawat ja itam du tax jigéen joojee donn ko bu fekkee jigéen jaa ko njëkk a faatu itam moom góor ga du ko donn wa tarisu dana donn aljaddatu maamu jigéen lil ummi ñel wàllu ndey ak suddusa suddus wa kazalika naka noonee allati maamu jigéen ma nga xam ne lil abi ñel na wàllu bàyyi fa inij ji tama xataa ndeem tase nañ ñoom ñaar fa suddus kon suddus ba bay na xumaa nekk na seen diggante dafa wax ne maamu jigéen mi ci wàllu ndey day donn maamu jigéen mi ci wàllu baay day donn wàññi woon nga leen ca ba ngay wàññi ñay donn mu ne nag ku ci wéet ci ñoom ñaar rek ab juróom-benneel muy ab suddus lay doon buñ tasee ñoom ñaar itam dañ leen di boole suddus ba ñu séddoo rek waaye duñ jox kenn ku ne suddus waaye nag buñ tasee teye moo dara jakat la ñuy séddoo suddus ba bu fekkee am na ci ku gën a jege moroom ma nag moom lay bëgg a wax illa an takuna dara bu dafa nekk allati maamu jigéen ma nga xam ne lil ummi ñeel na wàllu ndey aqraba di gën a jege bi darajatin ci daraja fatakoona te muy nekk awlaa di gën a yeyoo bii ca sudus ba li am na xaa ngir naka moom allati mooy maam ja nga xam ne fiihaa nekk na ca moom an nasu yaxub doon ga daa wax ne nag maamu jigéen mi nga xam ne moo féete ci wàllu yaay mooy cosaan ci doon kon nag bu fekkee moo gën a jege nga xam day maam rek te féete ci wàllu baay moom nekk maamaat kon moom mi gën a jege te féete ci wàllu ndey moom la ñuy bàyyee dono ba ndax ci cosaanu doon nga moom la yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon loo woon ndax nee nañu ci jamonoy Abu Bakar radiyallahu anhu maamu jigéen mi ci wàllu ndey daa ñëw ne ko jox ma saa wàll ci miraas mii mu ne ko yow kat dégguma alquran mbaa hadiisu ku baax ki waxal la benn cër da ngay dellu ba laaj ba xam am na ku dégg dara ci sa doonam déet ba Abubakar laajee nag ku ñu wax almuhiyatu mu Shu'bata ne ko man day teewe naa yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jox maamu jigéen suddus Abubakar ne ko ndax yow rek fekke loolu mu ne ko déedéet ku ñuy wax Muhammad ibnu Maslamata al Ansaari yu moom itam fekke woon na ko naka ñu andi Muhammad ibnu Maslama moomu mu ne waaw waaw mu daal di wax loolee mu xira waxan Abubakar daal di wéyal loola nga xam ne kon loolu moom mooy doon maamu jigéen ci wàllu yaay jamono yi Omar toogee nag ci xilaafa gi radiyallahu anhu maamu jigéen ci wàllu baay ñëw di ko laaj wàllam ci dono Omar ne ko Aboubacar day doon loo woon na maamu jigéen waaye ma ca wàllu ndeya du ca wàllu baay te man du ma sos ci miraas dara dara waaye nag naa la booleeg maamu jigéen ma ca wàlluk yaay ngeen bokk dono ba muy suddus boobee ñu àtte woon yéen ñaar ku ci wéet rek féetiwoo suddus ba bu ngeen tasee yéen ñaar ngeen bokk ko yemoo ca noonu la ko Omar wax kon nag gis nga ne maamu jigéen mi ci wàllu yaay mooy cosaan ca doon nga kon bu gënee jege rek mooy féetewoo dono ba te nag bu fekkee ne mi féete ci wàllu baay moo gën a jege itam du tax mu mën a dàq ma féete ca wàllu yaay ka doon cosaan kenn du ko dàq kon maamu jigéen ma ci wàllu yaay bu gënee jege moom dono bépp waaye nag maamu jigéen mi ci wàllu baay moom bu gënee jege itam du tee rek ñu bokk ko ñoom ñaar moo tax mu naa la wa in kaanat dem nekk na allati maamu jigéen ma nga xam ne lil abi ñeel na wàllu baay aqrabahuma di gën a jege ci ñoom ñaar fa sudus kon sudus ba baynahuma nekk na seen diggante ñis fay ni mbir mi muy yaari genn wàll bu fekkee ne maamu jigéen mu féete ci wàllu baay moo gën a jege itam du tax mu mën a dàq mu féete ci wàllu yaay ma cosaanu woon ci doon koy dañ koy seddoo rek wala yarisu du doon inda malikin fa malik ak sa lu ëpp min jaddatey ni ci yaari maam yu jigéen te ummil abi mooy ndey baay wa ummil ummi ak ndey ndey wa ummahatihima ak seeni yaay Maalik moom day wax ne yaay maam jigéen rek ñoo war a doon menn féete ci wàllu ndey menn féete ci wàllu baay kon moom day doon loo ka jur ndey doon loo ka jur baay ko ci xam ne nekkoo fa maamaat sus ci yow boo fa maamaat nekkut maamaataat sus ca ba ca aadama waaye wàll gu ne moom kenn rek la fay doon loo muy ci wàllu ndey ak ci wàllu baay kon ñaari maam jigéen daal moom maay duga weesu benn yoon wa yuzkaru def na tudd xan zayd ibni zabitin jële ca zayd ibni sabit radiallahu anhu annahu naka moom warrasa doon loo woon na warrasa salaasa jaddaatin yetti maam yu jigéen waaxidatan jenn min xibalil ummi ci wàllu ndey wasnatayni ak yaar min xibalil abi ci wàllu baay te ummal abi mooy ndeyi baay wa umma abil abi ak ndeyi baayi baay wala ñu faz te wattoo fut anil xulafaay jële ca way wuutu yonante bi tawriisu ak sara doon loolu ëpp min jaddatayni ci yaari maam yu jigéen Zayd ibnu Saabit yonante bi daa waxan ne moo gën a dégg miraas ci saxaaba yi moom nag daana doon loo yetti maam yu jigéen ndax day doon loo menn maam mu jigéen ci wàllu ndey nga xam ne ka jur ndey bu fa nekkee mu doon loo ko bu fa nekkut ka ko féete kaw bu fa nekkut ka ko féete kaw muy wéy waaye googu wàllu moom kenn la fay doon loo waaye waaye nag bu dee ci wàllu baay moom day doon loo yaari maamu jigéen ndax day doon loo maamu jigéen ma juru baay doon loo maamu jigéen ma jur maam ju góor kon tey jii bu fekkoon ne yow la ki jur sa baay nekk fi ki jur sa maamu góor nekk fi muy si yaari maamu jigéen bu doon moom ñu tase yaar yëpp lay doon loo ak kam yi doon loo nag ci wàllu ndey muy ñett bu doon ci maal yi nag moom ci wàllu baay bi kenn rek la fi doon loo muy ndey baay bu fa nekkut ka ko féete kaw muy wéy rek waaye kenn rek moom lay jël foofu mu ne nag Maalik daal loolu mu jàpp dëgër na ndax xulafaaw yi wasuñ cee dégg kenn koo xam ne doon loo nga loo ëpp yaari maam yu jigéen wa miraasul jaddi donop maam mu góor mooy idan farada ndeem wéet na fa la ñeel na ko almaalu alal ja maam mu góor moom ab donoom xaw naan roog bàyyi ci ay wet bokk na ca bu fi nekkee moom dong nga xam ne ñi fi nekk ñëpp menn moom dong moo ci war a doon kon lépp lay jël wala foo ñal na ko maxal wala di bu ànd ak doom ak dakari ju góor aw maxa wala di wala di wala ànd ak doomi doom ak dakari ju góor ak suddus suddus ba tey maam góor bu fi nekkee ak doom ju góor mbaa sët bu góor kon ab juróom benneel rek la mën a am du ko ëpp du ko yées fa in sharika hoo ndem bokkaale naag moom ahadun kenn min ahli sihaami ci ñoon cër ya ñu xayrul ixwati lu dul ay bokk yu góor wal axawaati ak ay bokk yu jigéen fal yuquda kon na atteef la wëññeel ko bi sudus ca sudus ba fa in baqee ndem desaat na shay un dara minal maali ci alal ja kaana mu nekk la di ko ñeel maamu góor nag fi nekkee ay waroomu cër waaye nag menn bokk nekku fa waroomu cër rek la fa nekkal kon dañ koy jox sudus bu téye tem xaar ba xam gannaaw bu cër yi teggee ba dem dana des dara am déet bu waroom cër yi teggee tam des dara ñu dolli ko ko bu fekkee desul nag mu jàpp ca sudus ba loolu lépp day moog bàyyi ñoo ko bokkale ndax da nga ne woon bàyyi bu fi nekkee moom dong day jël lépp lépp bu fi nekkee doom bu góor mbaa sët bu góor sudus képpal maanaam mënu koo weesu bu fi nekkee boroomi cër dañ ko jox sudus bu téye bu desee ñu dolli ko desoo bu desul nag mu jàpp ca sudus ba li ñu wutee nag mooy bàyyi moom bu fi nekkee dana daaneel mboolem bokk yëpp yëpp te maamu góor nag moom danañ leeral léegi lu muy jëflanteeg mbokk yi fa in kaana ndem nekk na maa ahli sihaami ànd ak ñooñ cër ya ixwatun ay mbokk fal jaddu kon maam mu xayyarun ku ñu tànn loola fii salaasati aw juhin ci yetti anam ya axus dana jàpp ayu zalika bu mu ci loolee afdalu moo gën la xooñeel ko su fekkee ne maam dafay nekk ak yoroomi cër ak i mbokk boole ci kon am na yetti anam yoo xam ne da ngay seetal maam bi ci gën ca moom rek nga defal ko ko imma muqaasamatal ixwati benn seddonteeg mbokk ya aw suddusa wala suddus ba min rasil maali ci lépp alal ja aw sulu sama wala sulus bi la nga xam ne baqee des na yetti anam yi mooy benn bu borom cër ya demee ba noppi ñu xool la fa des ñu jàppee maam mu mel ne kenn ca mbokk ya mu séddonteeg mbokk ya nga seet nag ba xam bu séddonteeg ñoom la muy am nu muy toll nga wëlbatiku seet boo jekki woon jekki jox ko ab suddus ab juróom-benneel ba tey nu muy toll seet itam boo bàyyi woon ba borom cër ya jël seeni cër ba noppi la des nga def ko ñetti xaaj mu tegg ca benn mu sulu suma bàq ya te xam lu muy am nu muy toll yett yi ngay seet lu ci gën ci moom rek nga defal ko ko yett yooyu nag boo doon jàng yeneen téere yi daañu la ci andil ay masala yoo xam ne bu dee ca masala yee sidookaay gën bu dee ca masala yee jël sulu sumaay gën bu dee ci masala yee jël sulu suma bàq ya mooy gën ci moom waaye nag daanaka guddal gi moom matu ko li ñu wax moom lu leer la yetti anam yee la ñuy seet rek bu ci gën ci moom rek nga defal ko ko fa in lam yakun ndéem nekkut maa xoo ànd ak moom xëyrul ixwati lu dul ay bokk foofu kon moom yu xaasi mu dana seddoonteeg axan menn mbokk mu góor wa axawayni ak yaari mbokk yu góor aw xaddalaxumaa wala seenum kem arba axawaatin yenti mbokk yu jigéen fa in saadoo ndéem ëpp nañu loolu rek fa laxoo ñal na ko ak sulusu sulusu ba ndax ndax foofu moom yaris dana doon ak sulus sa sulus ba maxal ixawati ànd ak bokk ya illa an takuna dara bu dafa nekk al muqaasamatu seddoonte ga afdala jigéen la xooñeel ko nee na bu fekkee ne tey maam mu góor ak mbokk yi kese kese ñoo fi nekk nga xam ne ay waroom cër amu fa kon yaar rek ngay seet ba xam lu ca gën mooy mu seddoonteeg ñoom mel ne mbokk xam ne bu dee seddoonteeg góor ñu yemle bu dee seddoonteeg jigéen mu am ñaar jigéen ji am benn loolu nga seet ba xam bu ko defee ak nga jekki-jekki dagg suñu suñu alal ji jox ko lu ci gën ci moom ndax maam bokk na ci ñi jekki-jekki doon ab ceer su fekkee ne maam dafay nekk ay mbokk yoo xam ne ñoo bari ba bu seddoonteeg ñoom du am sax lu mat sulus ab ñetteel kon dañuy jekki-jekki dagg sulus ba jox ko moom mu dem te bàyyi mbokk yi ñoom ñu seddoo def nañu war a def mën ngaa jàpp ne nag maam mu góor bu fi nekkee menn mbokk mu góor seddoo gaay gën ci moom ndax xam nga ne kon dana am genn wàll ndax ñaar bu ñu séddoo dara ku ne genn wàll lay am bu fi nekkee ñaari mbokk yu góor nag moom séddoo ga ak jékki-jékki jël sulus ñoo yemoo dong ndax bu fi ñaari mbokk yu góor nekkee moom ñi ñett bu ñu séddoo kenn ku ne ab sulus ab ceer lay am ba tey bu fi nekkee menn mbokk mu jigéen mbaa ñaari mbokk yu jigéen séddoo kaay gën ci moom waaw bu fi nekk nag menn mbokk mu jigéen moom bi ñu ko defee ñetti xaaj mooy jël ñaari xaaj ña bu fi nekk nag ñaari mbokk yu jigéen moom moom mu nekk fekk menn mbokk mu góor ñoo yemoo ndax bu ñu ko defee ñeenti xaaj moom mooy jël ñaar ña ñaari mbokk yu jigéen ñi ku ne tegg benn moo tax mu ne la mën naa see doon teg menn mbokk mu góor mbaa yaari mbokk yu góor mbaa boog lu tolloog yaari mbokk yu góor yi te mooy ñeenti mbokk yu jigéen waaye nag bu mbokk yi xasee ëpp loolu say boo rek nga jox ko sulus mooy gën ca moom ci misaal bu fekk ko ne maam mu góor dafay nekk yetti mbokk yu góor kon xam nga ne bu seet noonu te ñett ña ñuy ñeent kon ab kaar lay am xam nga ne ab kaar ab sulu sa ko ëpp moo tax kon bu xasee ëpp limu ñaari mbokk yu góor mbaa ñeenti mbokk yu jigéen rek say boo nga jekki-jekki dil sulus jox ko bàyyi mbokk yi ñoom ñu def nañu def wal ixwatu mbokk ya lil abi ñeel wàllu baay ma xaw ànd ak moom fii xadami chaqaaix yi ci ñàkk ay xarit ka chaqaaix yi ñu ngi mel nekk ay xarit nee na nag bu fekkee ne maam mu góor nekku feek mbokkum ndey ak baay waaye nekk na feek mbokk ci wàllu baay mbokk ci wàllu baay kat mooy wecci mbokkum ndey ak baay ndegam mbokkum ndey ak baay nekku fa lu war a jëflanteeg mbokkum ndey ak baay rek lay jëflanteeg mbokk ci wàllu baay fa init tamaxoo ndéem daja nañu xaaddaxoo kon limanteeg moom ak chaqaaixu xarit ya billasiina ci ña nga xam ne lil abi ñeel nañu wàllu baay fa mana ooxu te ñu teree ko bihim ca mbokk yooyee ci wàllu bàyyi kataratal miraasi barik doon nga su ma kaanoo topp ñu nekk a xàq di gën a yeyoo min hum ci ñoom bi daalika ci loolee daa wax ne su fekkee mbokk yi féete ci wàllu ndey ak bàyyi dañ fee nekk ak maamu góor su maamu góor nee daay seddoon te yéen kon mbokk yi ci wàllu ndey ak bàyyi sañ nañoo limaale mbokk yee ca wàllu baay te su fekkee ne ka bokk néew ba ndeeg bàyyi góor la bu limaalee ku bokk ak moom ci wàllu bàyyi bu séddoog maam ba noppi day nanguwaat la mbokk ma ci wàllu bàyyi yoroon ndax da koy wax ne ko yow maam jee tax rek ma wàññiwaale la ndax yoona ma may loolu waaye xam nga ne bu fi maam nekkutoon tam man maay doon waaye yow doo doon dara man nga koo misaale yow ki faatu yéen bokk ndeeg bàyyi te yow góor nga maam bu góor wax ne daay séddoon te yow fekk nag am ku góor koo bokkal baay wala am ku jigéen koo bokkal baay mën nga koo wàññiwaale ba séddoog maam ba noppi nag wëlbatigu nangu wàllam xam nga ne boo wàññiwaalee ku góor koo bokkal ci wàllu baay kon alal ja bu ñu ko defee ñetti xaaj maamu góor day teggi benn yow nga teggi benn ka nga limaale ci wàllu baay teggi benn nga wëlbatiku nag nangu wàllam ba tey boo limaalee ku jigéen kon nañu def alal ja juróomi xaaj ndax xam nga góor ñaar jigéen benn lay doon te ka nga wàññiwaale ci wàllu baay day jigéen kon juróomi xaaj lay doon maam mu góor teggi ñaar yow nga teggi ñaar mbokk mu jigéen ma ca wàllu baay teggi benn nga wëlbatiku nag nangu benn boobee loolu yoon moo ko maye